salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum le monde entier salaamaaleykum mbokk internet Tacko TV yi nga xamante nii ñoo koy safoo di ko faale eh, eh, eh, di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu diaspora bi di nuyu euh, bongomaan yi ci àdduna bi yëpp ah ak tous les artistes tëggkatu sabar ci fecckat yeeg ñëpp danseur danseuse ñëpp ñu ngi leen di nuyu comme que seen aar moo ñëwaat fii tey fii nga xamante ni mooy HLM fii ci ancien police bi donc fi fekk fi ndaanaan boo xamante ne nii daana kenn dootu ko laajte kenn dootu ko wër euh, muy Galas Bongo mën nañ ko wax Galas Bongo mën nañ ko wax Fallou Bongo mën nañ ko wax tamit le Bongo man du peuple après ndeysaan dinañ ñëw ci loolu mm. euh, euh, mu wax ñu ci lu tax ñu tuddee ko ko donc di di di ñaanal ñëpp jàmm ah, ah di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di bëggee donc ñuy commencé suñu émission ak Galas Bongo bi nga xamante ne nii moom mooy cartonné daanaka fekk ko fii ci goxam garas mi ngi lay nuyu di lay dalal. waaw salaamaaleykum laay maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Mhm. di nuyu site internet yëpp yëpp di nuyu tamit waa Tacko TV. waaw ñi nga xam te ne vraiment bokk nañ ci ñi mujjee ñëw mais bokk nañ ci ñi gën a siiw. te bokk nañ ci ñi gën a nit ñi di gën a bàyyi xel tubaarkalla macha allah. waaw tey nag comme ni nga ko waxee rek da nga seet si la Bongo Man di People nga fekk ma fii asalem. xam nga ñun nag bu ñu tëgg jiwul. waaw dañuy xëy liggéey. dëgg la parce que ñun ay jaaykat lañu macha allah. ndeysaan xam nga dañu am beneen métier boo xam te ne buñ newul si aar bi rek ñu ngi foofu ndaxte nekkul tout le temps tout le temps tout le temps dañuy jouer ji des fois dañuy jouer ji tëgg suñuy spectacle suñuy programme mais nag suñu jour repos yooyu nga xam te ne dañ koy reposer si xew yi dañuy dem xëy nekk suñu liggéey tey nag nga fekk ma fii aslem xam nga si partin bi ñëw fekk ma fii si bitig bi nga xamante ne nag bon sama bitigu xarit la mm-hmm. muy nekk nit ku baax. bitig bi bitig bi yu garaaw la fi nekk. ah yu garaaw fi nekk. non yow gisoo ko dara sax yow de toj naa fi sànq. non bitig bi bitig bi nee naa la bépp bagage bu fi nekk bu dëgg la qualité la. te lépp nag Italie lay jógee tubaraf kàlla macha allah muy nuru Cheikh Thiam suma xarit borom itali di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax. bitig bi nag mooy Ramses Luxury boutique. waaw loolu gudd na. Ramses luxury boutique. foofu nga fi nga fekk tey. turu turu bikit bi boo ko déggee nga xam lu rafet lay jaay dëgg neexul turu bikit bi boo ko déggee ñu bi ñu duggee dañoo sax tiit. ku bëgg a sañse daal. Ah. sañse lu rafet. ndeysaan non da ngay ñëw fii. boo ñëwee fii ah. asilem waagu ñaay Ramses luxury boutique am sañse. loolu daal lay nuyoo. ah mi ngi noonu nag mbokk internet bi dégg ko Galas Bongo la Bongo man di peuple. mi ngi noonu nuyoo na mu nekk ndaanaan nag. mu fekk ko ñu fekk foo xamante ni daana duñ fa fekk como mm-hmm. ah ba pare mu dalal ñu et donc mu ngi noonu présenté wu na léegi ndeysaan dugg ci ci ci waxtaan bi mm-hmm. ñu tuuti ci wàllu bongo mm-hmm. ndax bongo tey am na ñoo xam ne fi ñu ko am na ñoo xam ne fi leen bongo yóbbu euh, euh, kawe na am na ñoo xam ne tamit respecté wuñ ko ngeen baal ma mais am na ñoo xam ne dañ koo jox cër daanaka ba mu yóbbu leen fu kawe bu ñuy wax galas galas bongo le bongo man di posé lu ko indi waaw Dallas boobu le bon moment du peuple tur bi tur bi le bon moment du li ko indi mooy. waaw man sama option la. sa bëgg-bëgg la. may tëggal ñëpp. dëgg la parce que bëgguma bëgguma bëgguma nekk nii damay def damay def par exemple ñu ne yow ñu am xaalis ngay tëggal ñu amul xaalis du leen tëggal. dëgg la yaa ngi dégg te des fois programme daal ñoo xam te ni. dañuy am lu ñu la fayee fay la engagé la nga ñëw tëgg. dëgg la am ñoo xam bëgg ñu nga ñëw tëgg mais. amuñu lu la fayee dëgg la. léegi si kaw loolu nag ñu ñi ku ci nekk seen métier si ngay baax. si kaw loolu loolu mooy waral des fois ñu dalay woo. fay na yow maanaam su ma nee wax xam ne woo jaaj ak joor yow ku la woo nga dem. kon jeex na loolu ma fësal nag di ko def. waaw loolu dem ba askan bi tuddee ma ne Bongo Mandi People. parce que dañu ni Galas Bongo amul xaaj ak seen. nekkul day catégorisé catégorisé ñii rek lay du du tëggal ñii. parce que doole yemul. te xam nga fan si lay bëgg ak shopping lay bëgg ñëpp ñëpp mënuñu bokk benn toléré bi. dëgg la nee naa la ñii dañ woo. nga wax ak ñoom ñu am lu la fay ñu fay la. xaalis bu bëri nga ñëw joué. am na koo xam te ne bëgg na nga ñëw ci ngénte wala ci mariage wala ci anniversaire mbaa ci turam. te pourtant amul kase bi ngay fayee ko yow pour laaj ko. dëgg la waaw kon si loolu nag da fexe moom si moom rek nga dimbali ko jàppale ko ndax kenn ku la bëgg jàmm daw ba dee ngeen ñu la bañ. loolu nag moo dem ba law nag. léegi nag askan bi tuddee ma le bon moment du peuple le bon moment du peuple mi ngi doon internet bi dégg ko le bon moment du xàmmewul jaaj joor mais daa su ma juumul daa am ñoo xamante ni yeneen bon waaw lees ko mën a wax maanaam loolu laa ko mën a tuddee yoo xamante ni dañuy tëbbal ñi nga xam ne ñoom ñooy parce que àdduna moom lépp yemul quoi. Mm-hmm. léegi am na ñoo xam ne dañuy tëggal. catégorie seen bopp ñi nga xamante nii dañoo am xaalis. pour yem fa pour yem fa. am ñoo xam ni ñoom fi ñu toll la ñuy toll di tëggal ni kii mais bokk ñoo geew ñiy tëggal ñi am xaalis. Mm-hmm. ak ñiy tëggal ñi nga xam ne amuñu xaalis ñoom seen différence lan la. ok xam nga ni maanaam xaalis. man bëgguma ko teg foofu nga koy tegal quoi parce que boo nee ñiy tegal ñu am xaalis ak ñi tegal am xaalis parce que parce dama laa danga ma danga ma wax benn moo tax ma toll lépp xam man di peuple waaw léegi ñii mais yow kese lañ ko fi tuddee waaw kay ñeneen ñi tuddeewul leen ko waaw xam nga li tax parce que xëy na peut-être yërmande bi ma bi ma ci am ci ci ci ci ci ci ci nit bi ak ak peuple bi askan bi maanaam mooy neex nii xam naa sax danga bëgg mu gën a ci ci ci jotu nit mais xam nga ko waaw parce que nee naa la dëkk bi neexul waaw ah. te nekkul doole dafa yem. doole bokk ñu yem. da ngay gis kenn koo xam ni day nekk fu sori de lieu xam nga bëgg la bëgg li nga defee naa la mun na bu mun na la jox benn anecdote am na yoo dafa benn benn bis. waaw am kenn ku ma woon ku jigéen ma koy tëggal benn xew di ko tëggal xew bi dafa ma engagé dafa waxaale man bañ juboo si prix ma war a ñëw jouer ba pare ba heure ñibbi jot ma war a ñibbi pour pour pour mu ma fay pour ma ñibbi. mais ba léegi néew du ma fay de mais ni ma toogee di ko déglu di ko xaar pour mu lijjanti sama xaalis bi ma war a fay fay ma ko ma gis temps bi mu def. nga xam ni da koy lijjanti. ma gis bi ni mu yéex a muy xaar ndawtal di xaar ay affaire xam nga. ma xool xool xool xam ne kii gor la li ma waxante bëgg na ko def mais xëy na dafa amul. amul doole bi. ma xool xool jékki-jékki benn instant ma gis ko muy daje ay enveloppe xam naa ndawtal yi doon xool. dëgg la jëm ko dajale pour pour fay ma. si la sama yaram daw. ma xam ne kii bëgg na. mais amul mais amul. dëgg la ma ne ko may naa la li ma war a fay. ay xanaa keroog femme bi xam na de. ma ne ko may naa la ko mais li ci neex nag mu nekk nag nit ku nekk góor. ku góor nit ku baax ñu demal yaa deux ans si ginnaaw ma dajeeg moom supprime benn xew. dëgg la xàmmeewu ma ko. ndeysaan ñu toog noonu ci xew ma tëggoo par bay waaj a dem yaayam yaay xale bu jigéen bi ma galas bongo ma ne ko naam mënuma kaay mu ñëw mënuma xàmmee nga ma mën ko déedéet. ndeysaan man xam naa man maa man man maa naa fàttali mu ne man la yaay diw parce que boobu ma tudd si turam. dëgg la xam nga liberté de la woon. dëgg la. man ko ah sax mi ngi ne toog ko woo ma ñu gisante. ndeysaan. mu am lu jóge si moom. mais les li ma may. ëpp na li mu la waroon fay. maanaam da ko ko dénkoon rek. moo tax lu baax comme solo. <laughs> lu baax ndeysaan nit de def nii. parce que ma ko fekkoon. moo dëgër ci côté ci côté am dëgg la. indiwoon benn jafe dëgg la ma ne ko may naa la ko. ñu def deux ans si kanam mooy tëgg xew suprime ñu daje fa mais bi ñu récolté maag moom nee naa li mu ngi zéro ëpp nga li mu waroon fay ndeysaan moo ne lu baax moo am solo dégg ngeen ko internet bi ak les bongoman bu ñuy jiital xaalis quoi bu nee na bu ñuy nee na bu ñuy jiital xaalis waaw parce que am na am na ku lay bëgg te doo sa njëgu kase dëgg la dëgg la mais mais ñaata ngay fayeeku de de réel maanaam ñaata maanaam buñ lay mën buñ la mënee fay fan ngay tàmbalee sa prix ok xam nga ñun comme ni ñuy tëgg dafa bëri ay façon des fois day gis koo xam ni day am ngénte mais boo amee ngénte day tudd bu yem. tudd bu yem. kon tudd bu yem ak xew mag bokkul. bokkul ah yéen da ngeen tëgg bu ndaw. ak bu waaw boo xamante ni tudd kër la. waaw day am. waaw ngeen tëgg yóbbu bu mag bi comme ay bu bu war a def yendu. affaire yi si nekk ak lu si war a dem. ak lu si war a léegi ça ki nga xam ne dafa am ngénte. muy def tudd biir kër. waaw bu yem. bokk la day làng ci mbedd mi génn bagage yëpp ñëw ki la di def takku jàkka bokk la muy def xam te ni day rëy day génn jàkkaarloo yooyu léegi nag bu sëñ daam prix bu ñu koy tegee ah ok man daal li ma mën ma ko dëgg la méttilu ma samay bagage méttilu ma ko parce que daal man foofu laa ko teg daal parce que benn ma wax ni ma nit ki si ci lu baax ci ngay jaamu yàlla waaw waaw xam nga nit xoolal li nga xam te ne mooy dox sa diggante nit nga koy nga koy neexal. imagine kooku loolu ma defoon nag moom. Ah. ma xool muy lijjanti di dajale ay ndaw ki pour mu ma fay ma xam ne déedéet ko ma ne ah. ko loo xam ne ëpp na moo doon fay parce que lan moo tax xëy na ma ko lebaloon moo tax. li ñu ko leb la parce que dégg olof bi ay nee na ku leble. ku ñu fay sa bor nga mer. waaw la nga leble moo baaxul. li nga li nga li nga yaakaar naa li nga leble moo baaxul moo tax ñu fay la. Mm-hmm. nga kontaan. Oh. te mi ngi noonu. waaw xam nga xam nga loolu la instant bii moo tax parce que toujours ma wax rek ku mën lu baax defal. defal ku mën lu baax defal. dëgg la ba pare yu baax yi mu ngi koy fësal. di ko fësal. yu baax yi ngi koy fësal ndax ñuy def safaan ba. dëgg la jàngee ci jéem a lu baax di ko def. ndax am na mu solo. te ni ku ci nekk ci sa doole ngay dimbale. dëgg la dëgg la eh, eh, mi ngi noonu ku ne xam na ni Galas Bongo ñu ngi ko fekk fii asalem mu nekk ndaanaan bu mag la Bongo man di peuple eh, am na lu muy séen sax ci ci ci ginnaaw loo xamante ni daanaka bu tàmbalee dinañ ci ñëw mi ngi noonu Galas internet bi dégg ngeen ko nee nan Galas nee na moom tur bi rek daa yéeme na ñuy def lu baax te it na ñuy def lu baax parce que lu baax tamit boo ko defee yàlla da la ciy fay ba pare nga am ci lu baax mi ngi noonu. nit bu la bëggee waaw nit bu la bëggee amoo amoo fayam mi ngi noonu mais mais bu ñu mënee wax kañ nga commencé bongo maanaam kañ nga commencé commencé bongo ak foo ko jàngee. ok ak nan premier bi nga njëkk a fay ko si bongo dugg ci nekk fecc. <laughs> waaw waaw léegi xam nga nga bongo koy def dam bi ma koy jàng bu njëkkoon dama ko doon fowanteew. waaw dama doon jël sama benn leket. ma may dem marché jënd leket. su ma jëndee leket bi dem ci menuisier bi. waaw wut fa bois. compte flaque fay ko mu daajal ma bongo bi ma dem ci soudure métallique bi. wut fa lamb si. wut fa ay ngàccar. parce que bongo loolu moo composé. dëgg la laam leket ngàccar. waaw ngàccar mooy yi ñuy takk ci loxo yi mooy li ñuy dugal si loxo yi. waaw moo composé bongo laam leket ngàccar. léegi nag si kaw loolu am sama benn grand boo xam ne dañoo bokkoon dëkk Grand Dakar ñaari télé yàlla ko yàlla yërëm xaare ko mu nekkoon daara ko dem théâtre ñu ñu doon ko wax dem si yàlla Boy Ndiaye góor a moo moo boo defee li la am li la boo def li la war da nga naan Youssou ñee sa ñee sa gan daal ko génne ko dëgg la à l'époque kooku ma yónnee des fois may jël bi di ci foo di foo que amul lu balaa amoon dëgg loxo xam nga fekk avant loolu maa ngi joué pour ki sabar sabar waaw parce que ah, parce que sabar sabar maanaam def naa ci bari gérer mmh. naa si lu bëri. lekk rek nga ko deful. waaw monsieur may na ñu ne suma grand son mag Modou Seck Modou Mbalax bi borom ñaari tali moom moo leen jàngal. moo leen jàngal tëgg. xanaa kooku war naa mën a mbalax de. waaw moo ñu si nee ba affaire bi doo xam nga des fois ñu daan ñu ne si di nelaw. di nelaw nga nga bëgg waaw bu yeewoo sa doo comprendre. dëgg la laa jël di ci foo di woyantu si ngénte yi takk yi mariage di taasu di kebetu moo ne ba xam ne nag lii may def nag nit ñi commencé nañ ko bëgg. dëgg la ma jëmbat ci fula nag. jëmbat ci man léegi xaaral ma ko dëgg la parce que boo fooyee benn di ci def ndànk ndànk ndànk. dëgg ba am si ay soppe am si ay nit ñu baax ñu la yàlla boole ñu bëgg li ngay def di la boole yeneen nit. dëgg la kon loolu waroo ko caaxaanee. dëgg la ma xam ne nag lii la ma ne xaaral ma fonk ko. dëgg la ma fonk ko jël sama benn bongo di ci jouer jamono yooyu ànd naa sëg équipe. man kese maa doon jouer sama benn bongo. Mm-hmm. ma jouer sama benn bongo di jouer benn bongo di jouer ba musique la am sama benn xarit bu ma ko léegi kaay ma daaj beneen bongo jox la ko nga may wéttali. mu lay mu lay mu accompagner. waaw accompagner. dëgg la mu ne ma man noonu mënu ma bongo ma ne ko non yow téye ma gaam rek yow téye ma téye gaam. par exemple su ma nee ko dumba kuusuma dumba. waaw loolu ko dumba kuusuma yow dégg nga ci fii xam nga loolu daa gën kinda ka kinda kii gën kinda ka kinda kii gën ma ne ko soo ma téelee fii lu ma bëgg wax dinaa gën ko wax léegi moom mu téel ma foofu ñu ànd di ànd di ànd par la suite ma jël tama dugal ci bi ma si dugalee tama affaire nag léegi nag gën a fees gën a neex loolu moom kenn werantewu ko ak man Sénégal Bongo Galas Bongo moo ko njëkk a jël boole ko ak tama tama loolu moom ba pare ñëpp ko macha allah. dëgg la ma ci sant yàlla baax. dëgg la léegi fu mu nekk nii bongo maa ne koo ci gis yor na bongo yor tama yor sabar. dëgg la. bongo baa ko njëkk a jël boole ko tama boole ko sabar boole ko ak bool. waaw di ko joué. man naa ko njëkk a def loolu loolu nokkoos bu saf la. <laughs> léegi nag gis naa léegi sama mbokk comme léegi ñu koy def tamit dama siy kontaan parce que sant yàlla la. parce que nit ku yokkul yaa wàññi. dëgg la yaa ngi dégg waaw ah, di nuyu tamit a demee bu la xamante ne métier la boo boo mu ngi noonu ku ci nekk rek boo toogee di seetaan di nga dégg li galas wax mi ngi noonu eh, eh, fan yi nag damay gis benn affaire bu garaaw boo xamante nii ci wàllu bongomaan yi mhm. léegi damay gis bongomaan yi di tëgg concert concert bi nag xam nga ku ne bongomaan mhm. boo tëgg concert da ngaa war a indi ay bongo teg ko ci mooy teg ko ci di ko tëgg damaa gis ay bongomaan yaa xam danoo teg sabar sabar teg guitare clavier clavier ut benn waykat léegi nag ñoom te xamul ni musique yi bokkul temps yi bokkul mais musique musique bu bongo hmm. temps wu bongo ak temps wu musique guitare bokkul léegi nag dama cey gis waaw koo xam ne dafa nekk ci ci benn jour ñu dem fa di ko xool man ak Maodo ci caméra ñu dem fa Maodo di ma xool xam nga moom daa xam bagage yi hmm. xool ma koy xool mu naan ma kii kii daf daf dafa yabaate waaw ma ne ko noo yabaatewul daa xamul xam foofu la xam-xamam foofu la toll man nag dañuy gis ñu bëri nag di di imposer loolu te loolu mënul nekk mënul nekk yow yow da ngay dugal bongo da nga ciy dugal guitare wala kii wala yow parce que tamit boo xoolee bongo c'est non vraiment la ah, loolu mën naa loolu mën naa na ànd bongo ma joxaale si benn anecdote sama jigéen la Ndella Tall jaman noir waaw dana def anniversaire am bu ñuy def anniversaire mën naa ne anniversaire yi daanaka orchestre Pape Diouf moo ko tëgg presque daanaka parce que Jules Diop Peter Pape Diouf moo nekkoon chef d'orchestre. anniversaire bi maa ñoo si ànd di si di si waxtaan di si dox di si nas akoon na ci. ba yi ñu bokk di répété ndoo ba ci jour jour Sorano bi man maa ko aw principal ci yi. dëgg la dañu nekk répétition di jouer di jouer di jouer ba si yàgg borom claviste bi absenté. nekkatu fa. waaw léegi si biir si biir loolu. Jules Diop batiru Pape Diouf ni ma galas mu ne naam bi sa nga ñëw ma jël bi dugal ko si biir ñu répété ñu teg xanaa xam nga bongo marimba la. du laaj poobar la. waaw ah, bongo bongo marimba la. dëgg la jour ma remplacé ko si absence boobu mu def ñu takkal micro. ngay ngay teew bi may teew bongo bi di jiyee ba pare ko di ko aw. bëmb wala mooy nekk loolu parce que am naa benn bëmb boo xam ne dama ko amplifié. waaw utal ko jaag. jaag bi ma ko defal presse ndeysaan dama ko wan suma papa suma xarit sama mu kontaan ci trop ndeysaan ma lii moom innovation la. Mhm. xam nga bëmb boo xam ne tey parce que da ngay xalaat ne tey mën nga dugg si yenn salle ma mag yi. Mhm. war fa ji spectacle salle boo xam te ne day ngand day yaatu. te du am son léegi nag bu fa sonorisation ba nekkee da ngay jël jaag bi rek roof. comme ni guitariste yi jëlee jàngat di rof parce que parce que boo xoolee Kora. wala Kora noonu la demee rof kii def si ay kii yoo xam ne dafa amplifié wu jël jàpp bi dugal ko su ko defee mu def naa ko dëgg la dongowu maanaam su ma koy génne day fekk moom spectacle bu mag rek bu mag cérémonie mag laa koy génne yu mel ne comme grand théâtre wala barazar demee noonu parce que yooyu yëpp joué naa fa xam nga grand théâtre joué naa fa ndeysaan toog su ma yaay artiste sama mbokk yi xam nga devant le ministre Matar ba ñoom ñëpp ñu toog. ñoom ki na laam Fatou Guewel suñu yaay artistes yi waykat yi ñooy sax ñoom ñëpp toog. dëgg la ma teg foofu loolu. foofu wàcc. ñu joué fa nice. mu neex bon. bëri tamit ay société entreprise yoo xam te gérant seen affaire seen publicité. dëgg la xam nga. bëgguma tudd comme publicité la si télé bi site ah. la woon ci ci ñetti weer yi passé mais ah. léegi international bi ñu ngi koy seetaat adduna bi yëpp a ngi koy seetaat ah. léegi direct la fi mu toll nii émission bi bu buñ demee fee adduna lay seetaat nii parce que ñun boo xoolee Tacko TV dañoo mujjee ñëw mais dañoo ñëw ak doole parce que tamit boo xoolee ñun ngi nekk ci personnel bi yëpp ay jeunes la ba pare am lu ñu bëgg am fu ñu teg suñu bët looloo tax ñu sopp ñun ba pare am bëgg te nit boo bëggee dara da ngay def dara noonu la demee moo tax léegi Tacko TV international boo duggee mi ngi boo téléchargé di nga ko gis boo kiyee di nga ko gis léegi daanaka boo xoolee dañuy nekk ci na bi yëpp eh, mi ngi noonu mais fan la la bongo jëlee ak fu mu la yóbbu. waaw waaw jëlee ak ma yóbbu. fi ma bëgg egg fa dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg des na tuuti rek macha allah yàlla fa yàlla ci barke Sëñ Fallou. dëgg la mais fi ma jëlee ak fi ma yóbbu yóbbu na ma si. yokku na ci beneen étape quoi. waaw na samay xame. yokku na sa grand yokku na samay xame. yokk na ma xam ay nit ñu baax tax na tey am na lu bëri loo xam te ni même su ko doon def. def parce que nit ñi ñu ngi lay. bàyyi xel. dëgg la ñu lay bëgg. xam nga parce que nit ku siiw. waroo gaaw a xuloo waroo gaaw a mer waroo gaaw a xeex. parce que loolu parce que benn jour benn fugu benn fugu jeune sax ma jàpp rek boobu yor ma sax oto bi boobu moto laa yor ma jël moto bi ba benn waaye double ma mi ngi ànd ak benn kenn ku jigéen supporté ku jigéen si moto bi rek mu double ma ma double noonu man tam ma xaw a mer rek double waat ko man tamit ñeen di doublante waaye ñuy doublante ñu jékki-jékki avancé ba si kanam tuuti rek mu taxaw mu a waaye saa looy def ni ma ne ko tam looy def ni xam nga fugu simil affaire waaw fugu jeunesse jàpp la xam nga ñu ne xuloo bi ñu ne xuloo mu gaara ma gaara ñu ne xuloo ki ma àndal nekk de jabaram la sama soppeel man nag la bëgg eh yaa ngi dégg mu ne ay dalas bongo looy def ni ak yooyu ni ma la bëggee nga nekk sama fan nekk sama soppe dégg nga mais heureusement boo ñu jot ñu laa jot ñu dara loolu nag am lu ma jàng lu dégg na quoi léegi nag man nag jaratul nag jarul di xuloo jarul di gaaw a mer wala dara parce que nit da ngay da ngay da ngay am loo xam ne da nga koy bàyyi sa bopp. dëgg la parce que yow ñëpp mën na nga xam ne mënoo xam ne. dëgg la mais mën nga jékki-jékki xanaa xamoo am ba def attention artiste muy artiste ak caméraman beeg journaliste bi ñu ngi si yow mën nga dem sa bu xuloo sa soppe te fekk yow la bëgg. billaay wala far mu jaaree fa bañ la nag. waaw kon ndekete kii ñii la mel. kii ñii la mel ndekete. dëgg la te fekk na yow dina war na il faut ñu ci bàyyi xel des fois il faut ñu ci bàyyi xel léegi nag kooku bi ñu defee loolu après rek après ñu nekkaat ay xarit après ma dem mu jig may tëgg xewam dëgg la moom ñu dem ba nekk xarit ma jëkkër ci tamit xam ñu nekk ay gars yi ñu ñëpp dëgg la noonu la fa demee mais bongo ma jëlee fi ma yóbbu fi ma jëlee bi ma jëlee si boobu maa ngi doon foontu affaire yi di ko foowee def ndànk-ndànk boole ko suma métier di jàngi métier mais bi ma nee nga xam ne nag affaire yi dëgg la si man nit ñi bëgg nañ li may def dem si jëmbat fu ak fayda def ko métier wut groupe dëgg wut groupe di ànd ak ñoom. groupe bi ñaata personne la. na mën na dem ba douze personnes yenn saa yi. douze personnes mais nag du douze personnes yëpp. yaa ngi ànd ak chaque jour des fois damay jël ànd ak cinq yenn ma ànd ak ñëpp yenn saa ma ànd ak. dëgg la trois yenn saa ma ànd ak kenn kese def ko benn bongo. muy galas bongo ak xaali tama. xaali tama kii taxaw di si nga mooy xaali. waaw moom mooy xaali borom sàkkal. Uh-huh. moom nag après xaali dina yëngu. moom dina dugg si léegi. parce que waaw ah, pare na sax moom. ni ma la mën a daal. Dondore fi ma yóbbu sant naa si yàlla baax de. dëgg la fi ma yóbbu. sant naa si yàlla baax ban jour ban nga nga njëkk dugg ci sa biir nekk xam ne bongo tey fay na man maanaam tey moom damay fecc. xam nga day sànq ban jour. waaw <laughs> xam nga day sànq. dama ne fi ma yóbbu. ma jëlee man la fi ma jëlee ak fi ma yóbbu. man la fi ma fi ma si bëgg a dem des na tuuti. soo déggee man la des na tuuti mooy. bis ma si la dimbalee ba ma am si immeuble bu mag a mag. am si na ne am si ay oto yi oto. waaw non ku ma xam ne ko sama rêve réalisé na. dëgg la te loolu laay ñaan yàlla te yàlla nga ko yàlla defal. defal ko képp kuy dungoo maam ci Sénégal ak àdduna. bépp artiste. waaw ah, waaw léegi nag ne ma ne ban jour. waaw ban jour nga njëkk xam ni man. waaw nga ne man Galas Bongo dugg ci néeg teg xaalis bi so xol sedd ban jour premier jour maanaam jour bi la gën a neex ci. boobu dinaa ñëw xaalis bi si kaw bi. di di yuuxu. waaw ah, dinaa amee contrat ak waa Lanas ak waa Samsung. waaw waaw bi ma ñëw contrat ak waa Jonas ak waa bi ñu ma fayee damaa ñëw këpp xaalis si kaw lal bi toog di toog di parce que boobu dañ ma fay ay millions yu bëri. nga toog di ko di di di boo xamante ne daanaka dix jours laa ko def man ak per bu xar. per bu xar waaw. waaw ñu def xam nga ak yenn manifestation yoo xam ne ay banque yu bëri dëggal naa banque UBI xam nga. waa waa waa Confina. ñeneen ak ñeneen yeneen waa Azurite. dëgg naa seen programme. xam nga tëgg ay maanaam bu ma soog a tudd turu société yu bëri daal nga baal si kii mais def naa affaire bu ñu xam ne dëgg bi ñu xam ko artistes yi tamit xam ko des fois artiste day tumranke day dem foo xamante nii da ngay joué par du na fay nga dem foo xamante nii a may doo fa jëlee dara nga jël taxi dem sañse yor sa bongo ah, ban jour nga mës a am jour bu mel maanaam jour boo xamante nii daanaka tey moom dafa métti maanaam da ngaa tumranke ban jour la. non non man su sa amee loo xamante ne xanaa na ma métti tuuti benn côté parce que dafa am benn benn benn programme moo doon tëgg benn xew bi xam nga dafa am ñoo xam ne xëy na peut-être ku nekk ni nga mel sa jikko. dëgg la na la fay na la ñëw nga tëgg tëgg ba sa heure ñibbi jot parce que man fan man man dama naa fanaan ci langue ba trois heures du matin. dëgg parce que su ma ñëwee si xew mi tëgg jour xew mi bëccëg bi. bu guddi gi jotee yaayu xale bi suy lang damay toog assisté lang gi. ba dana la koy fay. non non lépp si xel mi soo ko bi. ok lépp benn que. ñu ngi maîtriser bëccëg bi nii noonu la ñuy maîtriser langue bi parce que langue ñun langue ñu ko maîtriser parce que boo ñëwee di ko parce que loo loo wax lu ne war a teg. léegi yow léegi yow foofu noonu dama lay téye nga nga woo nga woo xaali tama xaali. Mm-hmm. mën na sama beneen grand boo xam ne sax xaali la tudd moom it day tëgg tama. waaw waaye ànd ak ñoom Fatou Bongo ak xaalim. xëy na di ngeen xamante Bongo Mané xaar leen ma de fi toll nii yéen laa teg bët Bongo Mané parce que daa am daa am am na Bongo yoo xam ne respecté wuñ seen bopp de ñu baal ma nag. parce que tamit parce que ne. xam yoo xam ne. Mm-hmm. man benn jour fekk Bongo fekk na ma ci benn programme. nekk ci beneen level. waaw loolu laay bañ. te loolu baaxul mais man dama koy bañ. waaw soo déggee chaque jour lay wax ñu ne loolu dama koy bañ nit. métier booy def leket bi bu ko xeet. ndax mën naa lal. leket te ba pare sax leket nag daal si am secret. xam nga tey. Sénégal. mu ne def xew ngénte mariage tour takk cérémonie ba mu neex. te boo yëwee ci góoboo. waaw mooy togg nga fa sax cin ba pare. te xoromoo day lewet ko day lewet. yaa ngi dégg togg nga sa cin ba pare te wa day lewet. dëgg la léegi sax dama ko faral di wax chaque jour suma mbokk artiste yi bu ñu maanee dama bëgg rek ñoom. dama gën a yokku nañu gën a yokku. civilisation bi. gën a yokk fulla bi. gën a yokk fayda bi. gën a yokk personnalité bi. dëgg te mu si bokkul dañ ko ci boole. waaw dañ ci boole lu ci bokkul de. bul salte bul tuux. billaay bul naan bul geez. billaay parce que nit nit da ngay da ngay correct da yiw da bëgg lu baax gis nga am na yoo xamante ni li ngay li ngay tëgg sax mën na leen bàyyi neex. dëgg la mais sa comportement la ñuy xool mu neex leen ndax da ngaa yiw da nga civilisé ñu bëgg la. dëgg la kon booy def dara. da nga ko war a gis ci fula fayda nga naturel. dëgg la contre naa ku yor lekkat bi di tàggali ko sagoom. dëgg la wala di xeeñ lu mu war ta xeeñ. dëgg la di dugg si biir nit ñi. di gilli loo xam te ni loolu. loolu ko. complexe ko non non non bëgguma loolu. man man bongo man bu nekk mën naa la supporter mais ki ma mënul supporter mooy ki ko yor di tërëf wala ki ko yor. di tox naka su noonu wala si boole si bokkul. man Talla Bongo d'accord maa kooku. képp ku ma gis nag. nga boole ci fulla ak fayda di ci boole fulla ak fayda yiw siwisé bëgg naa la. dëgg la soo ko yëgee boo ko yëgul. ayca parce que métier bi laa ay ayca mi ngi noonu léegi euh, galas bu ñu mënee wax euh, euh, internet bi ñu seetaan ñu tuuti ak xaali xaali bu la neexee nga ñëw boo ñëwee nii ñu toog galas am nu mu def nga am noo def naa dinañ déglu internet bi jéem a enjoy tuuti ak ak ak ak ak ñi nga xamante ñooy seetaan mais nag ca waaw xam nga xam nga si kaw loolu. ayca. lépp mën na nekk lépp ambiance la. dëgg ndax tey nii a nañu indi bongo yi sax 15 bongo. wala ko tama mais loolu da ngay jox gars yi rendez-vous. waaw préparé ko. waaw bu ñu ko préparé dañuy teg bongo yi teg bool yi yokk tama yi daal di ñëw. waaw yëngal. waaw Tacko TV. kii nag toog nii mooy xaali tama. xaali tama. tama. xaali maa ko tuddee maa ko tuddee ah. moom yow kon mais yéen ñaar kon le le bon moment du peuple ak xaaritam international xaarit yéen koy yéen a moom àdduna tam international ayca waaw parce que moom dafa nekk koo xamante ni daf na moom tey bu nekk woon sama groupe bu nekk woon sama groupe bi ma tuddal mun naa ni sama fan si lay nekk moom dalaa bëgg daal waaw daf ma bëgg kon kay loolu dina neex te bëgg bu ma bëgg dafa fekk ni moom deuxième lay daw maanaam yaa nga ca kanam waaw lépp naa ko daw parce que dafa sincère sama diggante ak moom lu muy ànd ak man. dëgg la ndax dañuy ànd. dëgg la tey bu neexee dañuy séddoo suñu xaalis bu nakkaree ñu séddoo li fi nekk. li fi nekk kon am nañu xaalis. dëgg la parce que tëgg dafa métti kenn fayu ko. wallaay ba pare boo ànd ak nit dañuy dégg lu nekk amaana nit dina nekk si benn place am seen morom ñu fa bëgg a nekk. te duñ fa jéem a rugg te mënuñu fa nekk. dëgg la mais moom su ma diggante moom ku ci wax waxal jàmm ndax su ma def ko samedi ak dimanche dama ko def ko ma bokk ndey baay samedi ak dimanche la doxul ci diggante bi léegi nag balaa moo wax dara ah. day day nuyoo moom moom nuyoo balaa moo nuyoo tama ji lay mbaar doo ko wax du wax léegi yow tàggul mbaar bu la mbaar dawee nga wax ma Thank you. faras boobu yaa nga ca kaw <laughs> yow nekkoo ci suuf yaa nga ca kaw man nag yàlla daf maa dimbali galas ndeysaan ay taasu ah. waaw ak ay way da lay weex akum tëgg ah. hmm? akum fecc waaw daanaka kenn dama ciy mënta nax ndeysaan ndax dama ciy xuus ah. yàlla dimbali na ma ci su suñu borom nag moo ma ci dimbali yàlla dimbali ba pare ak traditionnel bi kenn mënuñu cee ndax ak moderne parce que dégg dama c'est que problème bi mooy li tax may def émission bi dama koo xam dama koo maîtriser macha allah yàlla nunu yàlla lafal cet waaye mm. yàlla na la yàlla lafal cet lafal cet xaali mii xaali bu bi mu tàggoo mbaar mbaar bi mu a tàggoo mbaar na ko mbaar ba waaw léegi nag dama bëgg moom moom mu jaare foofu nuyoo moom wax yow loo loo ci ci ci ci ci ci ci ci garab nee na nee na yow da nga ko bëgg loolu ba salaam tàmbali naa ñàkk sax waaw maa ngi nuyu. <laughs> waa Tacko TV. waa Tacko TV bu baax. waaw di di di lu émission bi émission bi waaw bu baax. dëgg la di nuyu sama mag sama xarit. galas moom moom man maanaam moom nekkatul ay am nekkatul waykat ak tëggkat. dëgg la man moom léegi ay frère la. dëgg la dëgg la. ay frère la ñoo bokk ndey ak baay. Mm. mën naa ni tey tey boo demee ba nekk ci ba dugg ci aar di tëgg. tëggkatu tama mm. waaw yàlla ak moom ci moom la jóge waaw. xaalis bi njëkk jëndee tam ci programme la mbir bu nekk ci mbir lay jaar hmm. mbir mu nekk ci mbir lay jaar hmm. yow say mbir ci mbiram la jaare mango noonu la demee moo tax moo tax coow li bari na lu la bari na mais mais man ak moom kenn mënuñu ah, kenn mënuñu kenn mënuñu taaxale man a moom parce que tamit dañuy wax ni dañuy wax ni àdduna hmm. booy def dara kenn critiqué wu la. dëgg la boo eggoo xool sa bopp. Mm-hmm. daanaka booy dox wala ngay daw. boo gëstoo sa paaw sa ndox mi ngi wàññeekoo sa sa daw. Mm-hmm. léegi nag boo gëstu da ngay continuer di def li ngay def. Mm-hmm. xam li nga bëgg ba pare gëm ko. loolu loolu nga bëgg a wax. loolu la demee. loolu la demee man ak moom. man ak moom man ba bañ ne ko man soxna. dafa dafa déplacé wu jóge jóge Dakar moom man man waa Sakal. waa Louga la Sakal mooy Sakal dirigeant la ah Ndiambour Louga mooy takk soxna waaw mais sax yow foofu yow boo tëggee tama nag. da nga war mu taal otoom. ñëw ñëw ñëw ba sama. <laughs> ba sa dëkk sama dëkk. Hmm. sagal la sigil ma fa sigil la sama sama famille yëpp. ndeysaan dëgg la dëgg la. ba pare di yeneen ak yeneen. dëgg la léegi léegi yow loo koy wax da nga koy ñaanal. ngeen ànd continuer man moom su suñu damay ñaan suñu aar bi mu dem ba jéggi fii jéggi fii foro jéggi foro jeex ñoom na ko jéggi ndax ku ne xam le beau moment du peuple ku ne xam ne ni soo déggee Youssou ñu ne Youssou Ndour le maestro intercontinental maanaam Youssou Ndour ah am na ma ko waxoon moom moom loo ko wax Youssou Ndour ah, loo ko maa ko doon Youssou Ndour liggéeykat la la eh, liggéey na ci ñoom ñu ba am rajo loolu ma waxoon ku ne xam na ni Youssou Ndour euh, euh, sunu père la euh, maestro bi ñëpp ci moom la ñuy roy artiste yëpp ci moom la ñuy roy mu ngi noonu ku ne xam na ne nag yow kii Bego Galas Galas Galas waxtu bi ñuy xoj waxtu bi mi ngi ñuy xoj eh, daanaka egsi na ba fii. waaw laaj lii yow da ngay def sa mot hmm? nga nga may ñu nag benn mesure bu ndaw rek. bu ndaw di mesure. waaw benn mesure boo xam ne yéen ñaar a koy teeloo rek. syncope syncope bu neex rek. après nga <clears throat> def mot de la fin. après ñun ñu tàggatoo daanaka boo xoolee fu ñu jëm. waaw léegi ma nuyu sumay xarit ah. nuyu say xarit ba pare mais nga nuyu fii ñu ne. waaw léegi xam naa dina nuyu ay tiset. léegi bu ñu fi mbëkk. léegi léegi xam nga li may wax ma waxaat ko rek. waxaat ko maa ngi gërëm borom place bi ñu nekk nii. waaw ah. borom place bi ñu nekk nii maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax Cheikh Thiam. Cheikh Thiam Cheikh maa ngi koy nuyu di ko ziar bu Cheikh borom italien. sama xarit la daf may defal teraanga bëgg ma fonk ma. lii nii bu ma ko joxee da ko koy jox. yaa ngi dégg Italie nekk nit ku baax waaw di nuyu tamit ki nga xam te ni mooy Seynabou Thiam di nuyu Khady Thiam di nuyu tamit ki nga xam te ni mooy Basirou Thiam dëgg la di nuyu famille Thiam yi ñëpp torop kala macha allah aw ma seen fay ay nit ñu baax lañu ndax ñun moom koo xamul noo koy def noo def ñu la moo tax nee naa leen bitig bii bitig bii ku bëgg a sañse lu rafet dëgg la fii ngay ñëw Ramses Luxury boutique waagu ñaay waagu ñaay asalam waagu ñaay asalam waagu ñaay en face police bu njëkk ba foofu boo fa ñëwee da ngay sant lu mel ni ndar hmm. maa ngi nuyu ne soo benn xarit ñu tudd bu ñuy wax Assou Gueye dëgg la yaayu Babacar chéri Babacar madame Sarr dëgg la ku baax Assou yàlla sa jàmm yàgg yàlla yàlla jooy sa teranga nit ku baax nga sama mag ji maa la bëgg maa la fonk. dëgg la suma benn xarit bu nekk Paris ñu koy wax Coumba Mané Diop madame Marega. dëgg la Coumba Mané Diop madame Marega borom Paris maa ngi lay nuyu bu baax doomu yaay Kourani Jara. dëgg la di tamit ki nga xam te ni ah mooy soxna Xayta Seck borom léegi léegi bëgg naa ngeen seeti ko. fu mu dëkk. laa ilaaha illallaah soxna Xayta Seck borom léegi léegi. Hmm. kooku bëgg naa ngeen seeti ko taaliba Alaaji Baara boobu lu ngeen wax du dañ ci kàttanu yàlla. soxna Xayta Seck borom léegi léegi taaliba alaaji baara kooku moom kooku mu kooku allah rapide laa ko tuddee lu mu wax dinañ ci kattan yàlla. di ngeen fa dem incha allah yow di ngeen déggu. di tamit sama benn jigéen mbay bu géey di ko nuyu baax. macha allah aji dama maar yaayam mbokk yaayam papis jéey mbokkum yaayu lamin jéey. di nuyu tamit ki nga xamante ni sama nit la suma xarit la sëñ Abdou Latif borom Kéemaan sëñ Abdou Latif borom Kéemaan di suma sëriñ bi nga xam te nag. mooy sama sëriñ muy Chérif Abdourahmane Fall Tilala la xaadimoo xaadim yàlla njëkkee àjjana amiin bàyyi Chérif Aziz Fall mi nga xam te ne si moom laa yeesal sama njëbal sëñ Aziz dëgg la yàlla fi yàgg lool te wér waaw tamit jaaykatu oto yëpp dëgg la di nuyu képp kuy jaaykatu oto képp kuy jaaykatu oto galas boobu maa ngi lay nuyu di <laughs> nuyu di nuyu Nokia borom Fass di nuyu Baara Lo mbokk ñaan teew borom Fass di mooy Ablaye Diack. mais mais Maodo Maodo boo boo mu maani. ak yow moo di nuyoo <laughs> sama xarit. di nuyu Malick Ndaw. non nag. dëgg la ku lim da mais képp kuy jaaykat oto maa ngi lay nuyu. dëgg la di tamit suma xarit suma frère. Mourtala Thioune Seydou Aram Ndiaye borom oto yi. dëgg la ndax nit ku baax la. Mourtala Seydou Aram maa ngi lay nuyu borom oto yi yoon. dëgg la di yow. waaw laay waaw. yow sama xarit nga dëgg la émission bi ñu koy nas yàgg na mais jot moo amul du woon dëgg la boobu ñu ngi ko nasee woon ñu ngi ko nasee woon fële immigration Ilimane Lamb Ilimane Lamb ko jaare ji nuyu Ilimane Lamb Ilimane Lamb suma xarit baax la dëgg la nit ku mun dimbali nit la di tamit sama sama diggante moom Baye Ndiaye Baye Ala Ndiaye waaw ah, Baye Ala Ndiaye bu Aziz Ndiaye waaw di nuyu tamit magam Aziz Ala Ndiaye di nuyu Babacar Ndiaye di nuyu Masata di nuyu bépp famille Alaaji Ala Ndiaye man Galas Bongo maa ngi lay nuyu. dëgg la xarit la. dëgg la Baye Ndiaye chaque tabaski moo may xottil yére ma ko jox ma ko te mosuma may ma naar lu ma may original la. jasinaire jasinaire mooy bi jógee Europe. maa la jamal loolu. Aziz chaque tabaski macha allah day yëkkati xar jox ma ne ma am Babacar Ndiaye ak noonu keneen ak keneen ak keneen ku lim dañuy jëm mais képp yaa ngi bëgg Galas Bongo Galas Bongo tamit mu lay bëgg bu baax a baax. am na jigéen jigéen ko seeti waaw ndeyaa xeer ndeyaa xeer ndeyaa xeer borom waagu ñaay waaw sob ndeyaa xeer borom waagu ñaay kooku lu mu jaayul baaxul ah, ok yàlla ñëpp am jàmm dëgg la am jàmm ñëpp am galas boobu moo nag méttiwul nee la ku am ak ku amul ñëpp lay tëgg la bongo man di peuple ku la war sama numéro di nga ma jot sama numéro whatsapp jeena jeena ayca mi ngi noonu 033. waaw 61 40. mi ngi noonu. 77. waaw 033. 61 40. moom Maodo nga ko génne mooy sama numéro. Maodo da koy daañu da koy def ci affaire bi nga xam ne da la koy lancer rek. <coughs> Maodo nag moom mooy le caméraman. le Maodo teel ma ko tuddee waaw de loolu la te tuddee ko ko. le bongo man du peuple le caméraman du peuple. kon Maodo yow yow caméra wu baaxul sama jigéen bi nga kii kii nu mu tuddati. tubaabu ñuul tubaabu tuddee. élève élève benn élève sant. sama doom sama doom day ma jàkkale moom. kii mooy Serigne Babacar. Serigne Babacar waaw. Alaaji Malik jàngu borom. xaar loolu loolu loolu loolu vinaigre la xaali ma tëjal ma tëjal ma tëjal ma seen ma tëjal ma ku ko dégg xam ne soose yeeg joolaa yi ak mandinke yi soninke yi ñëpp am nañ ci wàllu ñoo moom loolu galas bongo le bongo man di peuple may na leen ko donc mi ngi noonu di nuyoo waat rek di nuyu di di sargal yi ci national Sénégal boo ma xoolee xam ne euh, euh, dimanche bee ñu génn Sénégal a gagné. Mm-hmm. ndax bi mu gagné Sénégal yëngu na bongomaan yi génn. dëgg la dëggkat yi génn taasukat yi ñëpp génn di leen ñaanal ñu qualifié coupe du monde jël ko. ren coupe du monde bi Maodo dañ koy indi fii ci kàttanu yàlla ak baaxam te buñ ko indee fii laay ñëwaat fii ci fii ma ko waxee woon ci kàttanu yàlla ak baax Ramses yàlla mën na ko Ramses boutique fi laay ñëw ah. et donc di nuyu ñëpp di nuyu tamit sama cameraman yi di nuyu kat yi di nuyu suñu chauffeur yërum seex yërum ndumbaan bala kontuma demba moom xam naa dinaa ko tàgg ndax buy dawal mu ko ah. la ak ah seex yërum ndumbaan sa moom kii mooy seex yërum ndumbaan bala kontuma demba mooy sa ah. ma daawul ngewel mi ngi nii oh. mi ngi nii mais nag àdduna moo àdduna moo ci dàq dawal erreur. nañu yàlla dimbali yàlla ne yàlla na yàlla defal jàmm dama ne dimbali waa rek di nuyu tamit Babacar Maodo Ndiaye kat yi euh, euh, di leen ñaanal jàmm tawfeex ñuy gën a am ay vision yu gën a baax. ah di nuyuwaat Galas Bongo. mu dalal ñu doon ko baax euh, moom ni mu ne tekk ni la mën a taasoo. macha allah yal na la yàlla defal jàmm yërëm baat bi ndax baat mooy dem amiin yërëm cër yi donc te ñun ñuy boole nga ndax dañoo a dem ca kaw yàlla na yàlla def jàmm ma booleeg fee ma boole laak fii nga gérer ci kaw ma gérer ci suuf nuyu soxna Xayda Seck borom léegi yàlla baax duñ ñu boole ndeysaan ci kàttanu yàlla du nuyu euh, sama xarit la léeg-léeg daf may jox yére du nuyu sama sama sama cousine Khoudia mi ngi Colobane moom day jaay moo ma jox yére bu rafet. ndeysaan ndeysaan ñu ne sonal. waaw mais mi solo ma ko sax. da nga ko teg deuxième heure. waaw yow quatrième heure. kooku <laughs> quatrième heure lay génn. quatrième mi-temps. cent vingtième bi lay génn. ci kanam yàlla di nuyu tamit euh, euh, euh, équipe bu Tacko TV bi yëpp. waa régie ñëpp ñu ngi leen di bëggee. di bëggee ñëpp di nuyu sama xarit yi. ñu nekk Italie Allemagne su ma damay jub parce man international laa fi nga may gis nii. laay intéressé wu. noonu la demee ñëpp ma xam. yàlla ma xam laay ma jotu Diouf na ko yàlla defal jàmm jotu Diouf Serigne Diouf di nuyu di la ñaanal jàmm di nuyu waateel di nuyu borom bikit bi ndax tey dugal naa fi bii boo xam ne maa maara day taal bii bi ma dugal fii tey moom dañ ñaari ko gis Maodo su ma. léegi wax Cheikh Thiam borom Italie borom bitig bi. Cheikh euh, euh, euh, gis nga bagage yi. Mm-hmm. ñu gën a ñëw waaye Italie mënuñoo solo dañuy jàng solo fii la solukat yi ne fii ci asale waagu ñaay waa Italie ñoom dañuy defar rek ñoom defar leen mën mais solukat yaa ngi fii parce que ñun dañoo mën a concurrence ci ñun waa Sénégal surtout waa aselem waa dëkk nag waa benn tali waa ñaari tali Grand Dakar benn tali maa ngi nuyu sama dëkkandoo yëpp nuyu naa dëgg la yàlla jàmm yàgg ay ca Maodo su ma nee la